dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. dinaa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii. waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax. li nga xam la. mbokk yi bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan ñëw fi nga xam si moom mooy Pikine xurunaar waaye particulièrement cité Labat Fall nga xam si nii euh, kenn mënul wax euh, Pikine te tuddoo ko muy quartier boo xam ne bokk a nii ko si Pikiniteem ku nekk xam na ko si nekk amateur bu mag numéro un mën naa ci Pikine bokk si ñi nga xam si tey mën nañu wax ne tey monument biir Pikine euh, wax diggaam ci côté yëpp macha allah ndax muusam Pikine sax yaakaar naa bu jógee mu jóg Pape Sarr nekk grand boo xam ne grand bu bien la nekk suñu grand tey nag ñu dalal ko SBT Média euh, fas yéene séq mu waxtaan grand ñu nuyu la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi. waaw maa ngi lay fay suma xarit suma rak waaw nit ku baax maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa SBT Média yëpp di ñaan sa site bi yàlla na ko suñu borom parce que mu ngi def ay jéego yu am solo wax dëgg yàlla sa liggéey rafet na gis naa xam nga boo yu bëri yaa leen génnee. xëy na feeñul rek mais tey booy yu bëri yoo xamante ne tey ñu ngi ci làmb tey xam nga sa yow mii laa dégg nga kon bëgg naa promoteur yi di la geesu kaw xam nga di la jox sa cër tamit ba mu mat parce que yaa ngi def liggéey bu am solo Mass di la nuyu bu baax a baax. tey bu ñu wax euh, Pape Sarr euh, Pikine Pape Sarr ak kan mooy Pape ci lu gàtt ak Pape Sarr euh, fi ñu koy mooy làmb ji nga xam ne macha allah àdduna war nga képp ràññeeku nañ la si Pape Sarr ci lu gàtt la mu wax boole ak làmb waaw Pape benn ndaw la bu dëkk fii Kër Lobaat juddoo fi yàlla def tey ma nekk fii suñu kër maam Lobaat fi mu jàkkaarloo tey muy kër suma maam ñun la mook su ku jur sama yaay bokk ndey baay boo jàddee si ginnaaw ma koy ñaanal muy kër ñoom Samba Sarr tamit xam nga moo ya yaayam ak ku jur sama yaay bokk ndey ak baay kër gi mu jàkkaarloo waat même ci koñ bi muy kër Ibra Fall Ibra ak Rabi Fall bi jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay xam nga kër Bayla Fall mu ngi nii mook Rabi Fall ñoo bokk benn baay kon juróomi kër ci benn quartier man nekk fii ci quartier bi xam nga ñu juddu fekk suñu maam xam nga yàlla def mu am fi teraanga di fi dimbali ay nit xam nga ma nekkoon benn xale boo xam ne tamit dama juddu man kese ma bëgg làmb ci kër gi xam nga euh, lu mooy fàttaliku ci loolu mooy tey suñu musaana dem ci mu am na benn kër bu nekk fii boobu xam nga kër gi euh, ay poids ñoo fi nekkoon ay layit bu ñuur papa yi ñoom Pokola xam nga mooy As Mbaay ñoom layit bu xees ñoom Mbàkke du doon entraîné fii di yëkkati ay poids ñu nekk ay booy yu ndaw di ko seetaan xam nga ba benn jamono su ma ñëwee rek nekk foofu guddee sam papa di ma bëgg a rey di ma dóor dóor yu metti benn jour mu fekk ma boobu soo demee ci ay mbër soo ñëwee dañ lay dóor ba ngay bëgg a dee xam nga benn jour ma sol ti satu baabooy billaay wallaay talaay jour boobu man damaa fàkk damaa fàkk dem sama kër maam buudi xam nga sam di ma ko tere boobu xam nga paa jànga nañu comprendre nga gis que bëgg nañu seen doom yi boobu làmb melul nii bëgg nañu seen doom yi tey xam nga nekk ci ay bureau wala nekk ci leneen wala nekk ay transitaire man nag gisuma loolu gis naa ni tey man lii benn vice la benn benn genre drogue la bu dugg si man xam nga bi ma njëkkee sol ti satu Balla Beye numéro 2 sam papa daf tuuti mu ray ma dégg nga làkk ma ci tukulóor ñii waroo topp ñii ñii ñoo la war a topp affaire yooyu noonu comprendre nga est parce que xam na fi ma bokk xam na Pape Sarr mooy kan xam na ci ban ban xeet la bokk yaa ngi may di gis ce boobu xam nga bëgg naa baabooy bëgg boo xamante ne saa yu ma solee soleeti satam saa yu ma amee combat boobu maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax a baax su ma juumul combat mag seex mbaba la bi muy buddi seex mbaba di ko dóor ci suuf ti sa tam laa sol jour boobu noonu ñaari fan fanaanu ma ci kër gi suñu waajur di ñu tele ay làmb mais bu mu demee ba mu xam ni man damaa bëgg làmb daf maa mujjee bàyyi xam nga man naxanteeg moom waxtaan ak moom di ko defal chaque jour benn jour daal laa xamante ne maa ngi koy fattaliku bi sam papa joxe mille francs pour ma dem stade Iba stade Demba Diop boobu mu ngi tombeek Gilles Balde di bëreeg euh, Birane Kumba spécialu Balla Beye numéro un manga boobu laa fàttaliku sam papa mu libéré ma mooy mais mille 1000 ma dem esat si jamono jooju mille francs jamono jooju tey mun mun nga ko xayma ak cinquante mille jamono jooju parce que man lekk naa sax ñaar fukk kayit comprendre nga xam nga moo tax tey kër mbër bu ma dugg war ma war nañ ma téye fukki loxo ak juróom Pikine fii kër mbër bu mu doon nag yëpp yëpp man duma ko ñuy rejeté ci kër kër mbër parce que tey juróomi kër mu ngi fii yoo xamante ne tey sumay dereete ko moom te yàlla dimbali ma musuma fanaan ci benn kër mbër mbër musul teg bool ma dugal loxom lu dul ñu am combat mu mel ni seex sama doom mooy bëre yaa ngi may dégg est tey mun naa jàpp ne am na yu bëri yoo xam ne mu ngi may arrivé tey li ma sam papa doon wax xam nga ma koy dummóoyu tey yenn yi mu ngi dal sama kaw maa ngi koy doog gis conséquences yi man maa ngi koy doog a gis conséquences yi yu ci bëri maa ngi koy gis parce que barke Seydina Mouhamed ci famille noble laa bokk billaahi wallaahi watallaahi léegi fa bëgg ñëw euh, tey sa jaar-jaar si sa xale est que Pape Sarr jàng na école waaw jàng naa école CM2 fii ñëpp bàyyee laa bàyyee CM2 waaw naan tey CM2 laa bàyyee yaa ngi waaw mais man te góob saa yi ma duggee suba teel huit ah, bu ñu génnee récréation suba laay ñëwaat tëb naa miiru école bi dem Seras waaw dem seeraas sama jàng nag sorewul jàng naa xam nga xam nga mun naa ci faj sama soxla xam nga waaw maa ngi non maa ngi maa ngi takkale munu ma làkk moom wax dëgg yàlla mais maa ngi ciy takkale soo ma joxee dinaa xam ne lii la ak lii comprendre xam nga tey ku bo ku bokk ci rent DKR nekk ci ay contrat sa contrat yi nekk sa tour da ngay xam lii lépp la da ngay xam mbër bi jox nga ko cent un million deux cent da ngay xam mbër bi règlement bi lii la wax ak lii lii la wax lii la wax ci li loolu yàlla dimbali na ma man xam naa ko si waaw xam naa ko ci xam nga may sant nag samay waajur bu baax a baax a baax. gannaaw bi école bi doon. jàng naa alxuraan jàng naa alxuraan fii waaw jàng naa alxuraan fii ba egg xam nga am maayata am maayata na waaw jàng na waaw maa ngi maa ngi julli man ko ñaari si waaw wax dëgg yàlla jàng naa ba am maayata saalu na waaw jàng naa moom alxuraan wax dëgg yàlla su may waajur xam nga su ma musaana wàcc damay ñëw ñu xam nga ñu jàngal ma alxuraan uh-huh, parce que ñun ay xaalpulaar lañu dañoo war a jàng alxuraan. mais alxuraan moom ba tey nii euh, fer nga ci ijji boo gisee dara man ni xam. non dinaa xam dinaa xam jàng naa waaw man jànguma jàng gumba waaw jànguma jàng gumba fer naa ijji jàng jàng naa moom wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin samay waajur jàngal nañ ma fii ci Thierno jàllo fii tey sëriñ bi nekk fii tey amul ku mu jàngalul xam nga ku xam arabe bi nekk marché hangar jàng naa foofu parce que tey am na mbër yu bëri sax yu fa jaar ñu bëri ñoo xam ne tey ay magistrat lañu ay procureur lañu xam nga ñoo xamante ne bëgguma tudd seen tur nag ci télé ñu ngi fii ñun ñoo foowandoo fii xam nga si kurunaar bi fii tey lenn la ñu léegi ñii ñu ngi bitim réew ñoom ñëpp ñoo foowandoo fii wax dëgg yàlla quartier la boo xamante ne daal xam nga maa ngi sant nag sama mag yi fi nekk sama papa yi tey yar nañ ma yar boo xamante ne ba mënuma jël alalu jaambur naan loowuñ ma sàngara toxloowuñ ma yàmba xaw ma ko loolu dam si sant yàlla waaw musuñu ma sonnal musuma sonnal sama benn waajur ci yóbbu añ musul am si aduna kon loolu nag man dam leen si sant parce que ya sant yàlla la musuñu ma a sonal ci dara yóbbul kaay Pape Sarr laa yóbbul añ campénal wala 100 musul am Pape Sarr la ñu jàpp police ndax yàmba musul am Pape Sarr la ñu fekk baar ba muy naan sàngara musul am kon loolu man dam si sant samay waajur bu baax a baax a baax a baax a baax parce que yar nañ ma ci loolu moytuloo nañ ma ko yaa ngi may dégg est te maa ngi leen sant bu baax waaw mas nga balaa may continuer émission bi rek damaa bëgg am ku may gërëm koo xamante ne dafa sonn ci combat Pakola bi muy gagnant mu ngi ba Paris di di ko jaalee waajuram bu góor gagnant Pakola tey yóbbante na ma pour ma gërëm la ak Daouda Mbow bii ma sol mayom Daouda Mbow rakam mooy football fii championnat France ñoom ay taalibe seex lañu ñu ngi ba Almadi di di ay goro seexu Kuyaate xam nga waaw Daouda Mbow nit ku baax dégg nga taalibe Cheikh di nuyu tamit rakkam yi fa nekk ci kër gi yëpp ñëpp ñuy fubal ñi nekk Belgique ak ñi fay fubal ñëpp gis naa teraanga yu ñu defal Pokola yàpp naa ko sama scooter billaay wallaay tallaay ñu may ko ay euro bu bëri may nuyu tamit Père Gasson jàpp yóbbu naa fa Pokola mu yëkkate ay euro may ko tamit yooyu boo ko boo ko amee xam nga ak radiateur bu bu booy ñaa maa ngi koy gërëm moom it radiateur moom it jàpp na si kombaa bi bu baax. waaw waaw waaw waaw. nga sant gërëm ñi nga xam ñoo jàpp si parce que spécial Pokola serpent loolu dinañ ko waxtaane waxtaane ëllëgu Pokola ci làmb loolu moom spécial la mais tey Pape ñu ñëw si sa enfance tuuti tey loo xam ne tey boo ko toogee nga dem si mu neel sa xale mu marke la lan la sa xale loo xam ne dund nga ko boo si ba nii boo boo toogee bu sa xel demee dalay marqué <laughs> loo xamante ne nga xam nii nii màgg nga tey mais saa yoo toogee bu sa xel demee rek dalay dalay marqué maam sa xol da ciy da ciy da ciy bëgg dalay neex. waaw lenn la muy papay sa euh, pa papa Balde dañoo nekkoon marché Sabanel mu doon garde benn boîte de nuit bu nekk fii benn waay bu jóge bu jógee xaw ma côté dakaar yooyu noonu ku am tur bandi la woon fekk ñun ñu ñu ànd ak ñoom Paate Balde Paate Balde jóge Mbapat. Pathé Baldé avancer di yóbbu saaku ceeb bi seen kër xam nga waa ji tooñ ma dóor ma fa dóor yu metti waaw dóor ma ëpp dóor ma dóor yu metti waaw jaxase ma loolu du ma ko fàtte mu laj papa ñëw rek waa ji jóg sama kaw papa ne ma boo fayul rek man nangam taan papa yi Jacob Baldé billaahi wallaahi ne ma boo fayul rek xam nga man rek nag am na benn may ga bu fa newoon bi fa mayga bi comme waa ji moo ma ëpp doole gars yi ñu àtte ñu ma daw dugg si mayga bi mu ngi yoroon benn potu kaani yaa ngi mooy dégg est-ce ma jël kaani bi tibb ko ak sama loxo dugg si mayga bi tibb kaani comme moo ma doole ma bàyyi ko ba mu won ma ginnaaw rek ma jël kaani bi xam nga sëlam ko ci bët yi ba gisatuma xam nga rek ma xam nga rek ma daaneel ko ma fayu wàcc su suuf nag xam nga jeex sama loxo mu ngi amoon kubéeru kubéeru tamaate yooyu waaw ma lelli bopp bi yëpp billaay wallaay tallaay loolu laa xamante ne tey kooku dam koy gërëm ci loolu loo boobu ba tey gisatuma sama morom bu yéeg sama ndigg bi waaw loolu tey may na ma fit ba nga xamante ne sama morom musuma duma ci quartier bi parce que tey moom moo taxaw moom moo su ba su ma bàyyi woon noonu ah ku ma dóor nii rek laay def waa ji moo ma dóor dóor yu metti papa papa ba pop gars yi atte papa dama fayul papa mooy magu paate balde bi gaañu ma koy ñaanal yàlla na suuf sedd si kawam tey loolu laay remarqué sama enfant bi may nekk xale loolu daal fàttaliku naa ko mu marqué ma trop beneen bi tamit loolu mus na ma arrivé ci benn làmb Eumeu Sène xam nga benn adversaire u Eumeu boo xamante ne tey géejawaay la dëkk arène waaw mu xool ma ba mu neex ko <laughs> waaw mu xool ma ba mu neex ma jaar fu bon billaay wallaay maas defuma ko waxuma ko indi sama mbër mu indi mbërëm mu saaga ma yàlla di def ba affaire bi am deux ans mu doon taw ma ñëw seeraas rek fekk ko fa rek mu gis ko muy ñëw sama rakk yi gars yi fa nekkoon boo yooyu noonu boobu dafa amoon tool bu newoon ci ginnaaw ñoom bàcc seeraas ñoo fa nekkoon man leen gaayen ba le ne lii la ma waxoon ci stade bi mais ay xale yu am quinze ans ñoo ko wër billaahi wal kitaabi li ma doon wax la ko delloo boppam loolu tamit lu ma marqué la léegi tey ay xarit lañu bëgguma tudd turam nag léegi ay xarit lañu billaay wallaay yooyu noonu yëpp jànkoonte naa ko ci làmb xam nga fekk man sama mbër rek laay indi maas su ma indee sama mbër lu lu ko yàlla may ma ànd ak sama mbër dem ñu jël lépp ñu bàyyi yooyu. Mhm. léegi ñu génn foofu SBT Média di wax ne ngeen gën a abonné euh, yaakaar naa tey invité bi ñu leen invité invité de marque la ñeen leen invité tey koo xam si ni euh, mooy làmb ci Pikine macha allah mais Pape tey bu ñu wax Pikine démb. waxu muy tay de Pikine démb mbër yi fi nekkoon démb avant xale yi di ñëw euh, ak yooyu noonu tey boo ñu doon wax mbër yooyu noonu ku si mel ne kan ak kan ci jamono yooyu ñoo ci ràññ moom ndaw Tyson di ñëw ci làmb waaw ku mel ni Mbacke Ba Mbacke Ba mbër ñun dañ ko doon seetaan yi mu nekkoon champion bu mag Mbacke Ba Galas mbër grand Galas Balla Beye numéro un ñooñu suñu papa Pape Diop xam nga Mansour Diop champion la Mansour billaay wallaay fu ne la doon dem mbapat xam nga Papa Balde xam nga layit bu xees layit bu ñuul ñooñu tey xam nga ñoo fi nekk ñoom dégool comprendre nga bëri na bëri na ay champion yoo xamante ne xam nga ak kii comme comment euh, Ousmane comment dégg nga ñooñu ak Mbacke benn bu doon ànd ak Eumeu Sène xam nga ñoom yaayaa jàmme boo yooyu tamit doog a ñëw ñoom yaayaa jàmme ñëw ay ndaanaan la ñu woon boobu ñoom Mathieu Pereira ñu ngi fi ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ñoom taala Gaynde ñëw écurie Fallaye xam nga ñoom xam nga ñoom euh, boobu Balla su ma juumul Balla Beye numéro mu ngi woon écurie Waalo xam nga boobu Balla Beye numéro un mu ngi woon écurie Waalo après si la ñëw pikin man Balla Beye numéro un laa doon di géej mais wax dëgg yàlla grand yi benn mbër laa ci doon gis muy bëre bay wëndeelu muy Mbàkke ba moo koy ñaanal yàlla na suuf sedd si kawam moo nekkoon ndaanaanu Pikine Mbàkke ba. ban combat Balla Gaye numéro un nga njëkk seetaan. bal combat Balla Gaye numéro un mook euh, euh, Robert numéro deux seetaan naa ko mook Robert numéro deux seetaan naa Balla Gaye numéro un Lang seetaan naa Balla Gaye numéro un Serigne Ndiaye seetaan naa ñaari combat Balla Gaye numéro un yëpp ak Moustapha Gueye xam nga bi mu koy njëkk jox muñal Balla Gaye numéro un ak bi ko Moustapha Gueye di daan ak bi ko Manga di daan ak bi muy bëreeg Cheikh Mbaba bi muy bëreeg Dame Suger daan na Dame Suger trois fois xam nga daan na am na beneen séeréer tamit bu mu daan comprendre nga Balla Gaye numéro un tey ay victoire am moo ëpp ay defetam waaw ay victoire am moo ëpp ay defetam ndaanaan la. Mhm. ku si mel nga xam ne kenn mënut wax Pikine ko si fan fan nga ko seetaan. non musuma ko seetaan. non non ko seetaan. wax dëgg yàlla damay wax rek te yàlla tax mosuma ko seetaan mais dégg naa tamit grand naan dafa def fii ay jaloore grand yi xëy na sama mag yi ñoom ñoo koy seetaan mais ñoom mosuma ko seetaan combat Pape Diop yi ay benn laa ciy seetaan boobu ñun ay xale lañu ay benn lañ ciy seetaan combat Pape Diop bi benn wala ñaar laa ciy seetaan même dernier combat Double Less ñaari komba Double Less yëpp seetaan naa ko moog Mbaye Guèye yu mujj yi moog Mbaye Guèye moog Toubabou Dior boobu moom seetaan naa ko parce que bu njëkk ba da nga daan gis ay mbiskit sax ak ay tisi yoo xamante ne ay tisi duubal lees lañ ci doon def xam nga xam nga ay mbiskitam ak yëpp wax dëgg yàlla am na ay woy yu ñu ko doon woyal sax xam nga suñu génnee récréation di woy di woyal duubal lees xam nga waaw ma koy ñaanal moom it yàlla na suuf sedd si kawam. Mhm. dégg ngeen fi waxtaan bi toll macha allah ginnaaw kon ñooñu ci la génération ñoom Balla Gaye numéro 2 ñëw ñoom Mohamed Ndao Tyson ak ñoom Mansour Diop ak champion yu ko si mel ñoom Eumeu Sène seen rakk ak ñu mënoon ñëw mm. waaw après si la ñoom baabooy ñëw bi ñoom baabooy bi baabooy ñëwee ñoom Eumeu Sène xam nga ñoom Eumeu Sène Tyson Junior ki njëkk déggal ki njëkk jox muñal kii euh, bombardier muy Kor Ndiak xam nga Tyson numéro 2 ñooñu ñoo fi nekkoon Jules Balde Papa Balde Assane Balde xam nga euh, nu mu tudd sax Conke euh, bu parcelle xam nga musaa jum Zos xam nga Zos Zos noiro la ko Pa Fall laay doon woowee xam nga Balla Gaye bi muy bëre mbapat mécanicien la tuddoon Balla Gaye numéro un avant muy nekk école balla lutte Balla Gaye mécanicien lañ ko doon woowee waaw ay mbapatam xam nga après ñoom yaayaa jàmme Fallaye de ñëw Malaw Seras jinne jinne la Cheikh Ngiraan Khalifa Ngiraan Zayan booga xam nga su ma limee fii damay juum ñoom super jamono comprendre nga que xam nga maîtrise dolf ñoom ñëpp fii lañ nekkoon ñoom ñëpp am na combat zos boo xam ne Alassane Diogo la ko bëree te waa Kër Fallaye ñoo ko indi xam nga du ma juumul est-ce que du zos Issa su ma juumul Alassane Djigo la woon tey muy ay ndaanaan yoo xamante ne tey fii dëkku làmb la dëkku làmb la goxu làmb la ba pare tey fi may jëlee nii fii la Papa Kane dëkkoon Papa Kane benn Papa yi Ndiaye ak ak kii Papa yi Reug mooy ki bokk ak Papa yi Reug Reug ndey ak baay muy pàppakan Kane tey am na ay doomam yu bëri fii lañ juddoo ci kër gi mu doon organiser fii ay mbapat di fi di xam a di fi di fi géewal ëmb seen géewal na fi ku ñuy mbër bu mbër bu tëwoon ku ñuy wax booy yaraax saa yaraax fii la tëwee fii kenn mënu koo daan am seen a feeñal fii ay sekerem billaahi wallaahi talaay. mais mbapat bi coow li gën a bëri mooy euh, Samb di ko nuyu bu baax euh, tey ëmm seen Ousa coow loolu est-ce que man ngi see ñëwaat ëmm seen Ousa Sow. waaw dañoo ñëw daan ko. waaw Ousa Sow daan ko école neuf boobu ma koy nuyu policier njaga njuga xam nga ak papa yi ñoom euh, kii taal su koy taal. xam nga moo doon taxaw waaw waaw Ibou Tall moo doon wax tàccu xam nga yooyu noonu soo ko soo ko boolee muy fukk xaw ma tàccu yaa ngi may dégg sa euh, kii doon indee tuus bu neex Ousa Sow ama seen tamit di di dugg see tuus bu neex ñu ñëw lendemain bi barki Seydina Mohamed euh, beneen si lendemain bi dañoo ñëw Ousa daan ko ñu ñëwaat ama seen wër ko ndomb xam nga di fecc du ma ci egg sax li ma doon def wër ko ndomb daan ko jël bu rëy billaay wallaay daan ko jël bu rëy foofu waaw te yox ko yaa ngi may dégg doo ko daan waaw parce que seen dër bi ñoom ñaar dër bi la woon Eumeu Sène ak Ousa Sow foo leen musaana dégg mbapat bi day toj day fees dell am ma Ousa Sow xam nga Ousa Sow Pathé Baldé bi la woon mais waaw non Ousa Sow Pathé Baldé bi la woon am na benn combat Pathé Baldé Ousa Sow man si nuy waale Pa Idi benn BM laa sol boobu maa ngi cité Elisabeth Diouf Pathé Baldé jour boobu mbapat bi eggul dégg nga Pa Fallaay mu ngi fa papay Ousa Sow bii mu ngi fa woon ci mbapat bi du ko fàtte mu ko muk muk muk yaa ngi may dégg est-ce que dégg nga paate dafa ñëw boobu ñun ñëpp ñun ñu ngi ñëw yor ay arme dugg si làmb yi biñ ñëwee paate Balde saako ceeb bi la dugal paaka bi rek bënn billaay wallaay avant mu koy bënn dafa dafa dafa sex xam nga dañ ko doon def sex saako bi si géej moom billaay wallaay waaw rek tamit ñuy ñuy échauffé wu moog Ousa Sow rek paata dugal ko kow fala mbapp waaw loolu moo amoon ci mbappat yi déggoo ma ne la soo ñu suñu bëreeg yow duñu musaana ànd ak bëreeg yow suñu demee bëreeg yow mbappat ba pare su mbappat bi tasee si yoon bi tamit noonu lay demee barke rasulullaay moo tax xam nga léegi nit ñi mbappatuñu ñun suñu xam nga mooy tey booyi fii booyi pikini mbapat nañu fu ne tëngéej fu ne maalaw seeraas booyi yóbbu na leen fu ne mbapat ba pare mu nekkoon ndaanaan moom maalaw seetaan na benn mbapatam mook euh, boobu euh, kii bukki mooy Mbaye Guèye Junior sama Samarak Ama boobu maa ngi mbapat boobu tëngeej yaa ngi may dégg gis ka euh, jinne jinne la boobu suma ma juumul am na ku si amoon sébi diggante maalaw seeraas walla jinne xam nga ba kii daan leen ci daan leen fa nu mu tudd ki da ki ama neex daa kii ama daan ama neex waaw ama neex moo toj mbapat boobu mais mbapat boobu Euh, suma ma juumul maalaw dem na ba ci final mu nekkoon ndaanaanu mbapat xam nga tey booy yu bëri da leen tette ci mbapat sonn ci ñoom may ñaan tamit booy yi fay ko parce que ku ku doon kuy sonn ku doon sonn ci booy yi. non bàyyiwul du bàyyi kooku du bàyyi. Uh-huh. léegi ñu ñëw sa diggante ak Balla Gaye numéro 2 sa relation ak Balla Gaye numéro 2 lu ko andi. waaw sama relation ak Balla Gaye numéro 2 dafa juddoo daaru man suma maam. Bayla sama maam euh, sama maam Dabo ni papay Bayla Bayla Dabo xam nga kër gi dafa am ñaari Bayla dafa am Bayla Sarr ak Bayla Fall Bayla Fall boobu suma ma ndijaay la Bayla Sarr bi ñoo bokku ndey baay ñaar ñëpp dañuy tëgg ay mbapat kii moo gé ñoom ñaar ñëpp ñoo génnee Ama Baldé xam nga kenn ki moo tëggal Sa Thiès bi ko bi ko Alioune Seye Boy Seye numéro 2 di daan xam nga Ama di jël final bi foofu. léegi nag kër googu mooy kër baa baye kër baa dabbo man kër googu presque def naa fa at dama fa daan fanaan baabooy fa la dëkk nongoloo fa dëkk fa la dëkk ama seen fa la dëkk suñu papa papa Diop fa la dëkk yàlla def nag waajuram bu góor nekkoon suma service su papa fu ñuy wax sowaadib siyaas sam papa nekkoon foofu comme chef papam nekk fa suñu wàccee fii la papam daan toog nekkoon sama wëllëre maam lobaat nekkoon suma xaritu papa muy dem bay ba nga ma nga xamante ne man bëreem neex na ma ma topp ko mun naa la ne tey li ma financé sama alal si baabooy financé wu ko ci benn mbër dégg nga financé wu ma ko ci benn mbër yaa ngi may dégg est-ce que xam nga danaan ñëw ëpp moo doo ëpp ragalu ma ko ragalu ma ko de mais danaan ñëw bëgg dama ko bëggoon da daan jël loxoom di ko dugal sama poos buntu kër ñoom Amadou Fall li may wax nii ñu ngi ma koy dégg kër ñoom Mout Fall tey ku fay nekk gaynde ak ku fa am fit tey kër googu noonu kenn musu leen turbale falaa daan toog fala baabooy daan toog Tyson fa la daan toog képp kuy mbër fa nga daan toog Eumeu seen fa la juddoo moo tax Eumeu seen bu ma déggee ñu naan ay waxu ragal nit ñi ay ree sax la may def koñ boobu ku fa juddoo ragal sax du bokk si yow falaa nekk falaa laa foowee fa defee sama lépp parce que sama suñu kër mu ngi foofu biir daaru jaayu ñu ko luye ko mu ngi foofu ci koñ bi ba tey ni ma lay wax nii yaa ngi may dégg si loolu moo ma booleek baabooy ma bëgg ko di ko topp ba saa yu amee combat archive yaa ngi fi sama téléphone mu ngi 2S TV man la fi 2S njëkk seeti si combat baabooy may daan dugg ci autorité yi di sonnal sama mbokk yi su ñëwee bëre am na ay tiset am na xam nga tey euh, suñu déggee may wax ci ba baabooy baabooy baabooy rek xëy na am na ñoo xamante ne dañoo forul fi ma for moo tax ñu ciy bàkkaaru mais koo dëkkal nekk ak moom di sonn ci moom mun naa wax ci moom billaay wallaay talaay Bécaye mbay mu ngi may dégg stade amitier la Baboy Gris Bordeaux ma Baboy mu ngi duggee ci benn minicar bu weex la duggee ci stade bi sol grand bu bu bleu bi ma dugg see si stade bi Baboy dugg sigul ba Bécaye Mbaye moo jóg taxaw ci plateau bi mu taxaw yuuxu sama tur ne seen nañu Pape Sarr dafa mel ni Balla Beye numéro 2 mu ngi ñëw stade amitié mel ni xam nga. xam nga marché bu billaahi wal fast pic waaw loolu la woon yaa ngi may dégg est-ce que billaahi wallaahi tallaahi bépp tisetu baabooy boo gis baabooy teg loxo bi joxoñ ci kaw sama ñaq la man Pape Sarr maa ko wax bépp tisetu baabooy bu nit sol ñu bind ci ginnaaw mbaroodi ci turu tukulóor xam nga mbaroodi ci tukulóor mooy gaynde moom laa bind ci ginnaaw parce que xalpulaar la mu ngi teg loxoom def nii joxoñ loxo bi ne tiset yooyu suma ñàkk la maire defaru ko gouvernement defaru ko promoteur joxuma ko man sama ñàkk la ma gaare fii boobu komba boobu pakala sax dem na estaat pakala mbër bu mbuur fii la juddoo ñu yëg ci barki yàlla fii la juddoo ci biir kër gi pakala bu mbuur papam mooma yar mbisaan yaayam Faat Diouf xam nga ñu ko doon wax Aliou Pata dégg nga Aliou Faye la tudd mooy turam dëgg-dëgg Aliou fay ñu ngi ko tuddee suñu benn grand tailleur bu nekk fii bu ñuy wax Aliou Ba moom lañ ko tuddee pakala dégg nga baabooy su ma ko deful woon dara du wër ndomb Yékini ñëw fii di ma delloo njukkal ci biir kër gi yëg ci ay fas ànd ak DG ànd ak Géja ànd ak ay autorités yu bëri dugg fii ci kër gi boobu maa ngi dem seeti ji Paate Balde Kaolack fekk du ñu juwaloo mu ngi doon def sargalam bi Alassane Djigo balaa muy jaar ci benn kër fii la njëkkee yàlla def suma beneen di jaay dammoon ci kombaa bi bu mu ñëwee nag jox na ko li mu jox na ko loo xamante ne moom la am du force mu yëkkati ñetti junni jox ko ñun ñoo tabax ñoo faj dégg nga moo tax sama yaay daf ma naan lii lii la la sa papa doon wax sa papa li mu la doon wax ci mbër yi mu ngi nii. mu ni ma ci Pikine euh, sonn yàgg sonn yàgg ba tey nii bàyyiwoo ak as bi nga am euh, tey saa yu Pikine jógee rek day mel ni tey la Pape Sarr gën a nekk xale ci wax ci jëf ci lépp est-ce que tey mën nañu xaar euh, comme Massa ni mu koy defee ndax am na ñeneen ñoo xam ne des fois moo am ay ay a ja parce que ay nit ñi ànd ñuy xuloo ñooy xeex des fois ñu gis nga taxaw ci taxawaay bu rafet ay diggante ba mu rafetaat est que mën nañu xaar ëllëg diggante Pape Sarr ak Baboy lépp rafetaat nekk waaw man jullit laa suma papa aji na màkk aji waat aji waat sama maam la baat lu baax rek laa gis muy def sept cent personnes la yóbbu màkk bàyyi fa sept cent cartes grises kon kooku buntu kër gi chaque jeudi day fees dell ak ay silmaxa ku si nekk mu jox la mille francs mille francs jamono jooju silmaxa dégg nga tamxarit mu gaare fii ay nag parce que ñun loolu la ñu xam man sama xol bi dafa set wicc dégg nga yaa ngi may dégg gis que man bàyyi woon naa ko bàyyi woon naa ko dootu mu bugguma woon wax ci baabooy lu ñaaw mais munuñu ñëw jubóole la ak seen ba pare ba Eumeu seen di préparer bombardier ñu dëkk la micro sa rakk mooy bëre muy muy Eumeu Sène xam nga loo ciy wax mu ne sama yoon nekkul ci combat boobu loolu noonu jullit du ko def jullit du ko def ba mujjee fi ma jaar moom yëpp mu mujjeek man police ci ay information yoo xam ne tegoo ko fenn ne dag may yóbbu police fii dégg nga gis nga police Pikine bii ki ki fi njëkk dugal man xam naa ko police bi biñ koy tabaxee ba pare ki njëkk mos violon bi man xam naa ko moo ki njëkk jàpp dugal ko ci biir violon bi man xam naa ko moo tax bugguma di gaaw a wax moo tax euh, nit ñi nañu moytu ku xam ñuy dugg ci nit nañu moytu ku xam moo tax bugguma di coow ak benn booy mbër parce que samay bal du jeex <laughs> damaa bëri ay bal ne ni àdduna yëpp dañ koy xaar ndax euh, Balla Beye euh, ku baax la ba pare am lu def Pikine di di doomu Pikine yow ngay doomu Pikine am loo def Pikine kenn ku nekk tey ci wàll bi nga féete champion nga fa moom wàll bi mu doon représenté Pikine muy wàllu bëre bi fexe na nekk na ah, mu mu ñu gisaat Pikine nekk benn Pape Sarr Baboy wax di yaam donc loolu àdduna yëpp ñu koy xaar xam nga man ku ma xam Pikine nga ma xamee képp ku ma xam damaa bëgg xam nga ci boole laa nekkee yaa ngi may dégg est am na yeneen mbër yu dul yu dul baabooy sax yoo xamante ne tey ay nit ñoo ma jaxase woon ak ñoom ma doon sonn ci ñoom mais bi dëgg bi amee lépp jeex na tey mu ngi nii te billaay wallaay talaay seytaane rek moo duggoon foofu sama diggante ak ñoom te man xam naa ne bokk nañ si ñu ma gën a rus Pikine ñooñu boo xale yooyu noonu tey xam nañ ni erreur yooyu dootu leen dalati mukk yaa ngi ma dégg ñoo xamante ne ñu ngi doog a ñëw ci yéen xam nga moo tax chaque jour dam koy wax booy yi nañuy jàpp seen nitu démb yi bu lu am ja nañ jàpp ñooñu ñuy jël ay coton di ko def seen nopp yi yaa ngi may dégg est nit fekk na ma tali bu mag ndaayaan boobu may toog may xeex ndax Ama Balde billaay wal kitaabi Ama Balde la doon wax lu ñaaw ma fay xeex si kanamu ñi may seet ñi may seetaan xam nañ li may wax waa ndaayaan xam nañu benn nit moo fa ndànk dem foofu ne maa ngi mu nit jox ma pour ma dimbali mbër ma lekk si ñaar fukk parce que yii laay bañ pour subaa soo ma waxee ma mun a tontu moo tax ma dam koy wax ma ne la boo yu mbëri nag laa wax boo yu mbëri képp ku ciy geer ak Pape Sarr di nga xam ne Pape saar moo la ëpp bal geer ak Pape Sarr du noonu def fii Pikine du ma la si xas du ma tudd sa tur du ma wax dara waaye maa moom sama bopp xam naa fu may jaar de xam naa loo xamante ne dam koy def sa xool di dagg doo ci mun dara sama digganteeg baabooy ngay wax dama bëgg sama digganteek baabooy non man jullit laa man Pape Sarr man jullit laa moo ma tooñ comme moo ma tooñ te bi may yóbbee police sama kilifa yëpp a jóg tey sama papa sama waajuram sama waajuram yàlla bu ko dekkiloon dekkil sama papa ñu ne sa ñaari seen ñaari doom yi ñoo demante ba police ah sam papa day jël paaka jam ma moom papam jël paaka jam ko billahi wal kitaabi suñu dekki woon Amadou Moctar Dare jog ju xam nga xam nga dekki moom waajuram bu góor dekki parce que man avant may xam ni kii mooy papa yi baabooy sax ah Pape Cissé laa fekk siyaas muy liggéey comme camion affaire camion yooyu Pape Cissé magam laa fekk siyaas fekk ma feebaroon am na benn dispensaire bu nekk biir siyaas si la ma Pape Cissé treize ne ma sam mu ngi nele biir siyaas li may wax nii képp ku dëkk daaru xam ne ni papa yi baabooy siyaas la nekkoon sam papa siyaas la nekkoon ak soadib yaa ngi may dégg est-ce moo tax moom dafa dafa umpale lu bëree bari bari bëri xamu ko dama koo dama koo dimbali ba mu egg fii na fàttaliku rek fu mu ma mayee juróomi dërëm moom moom baabooy na fàttaliku déglu ma rek maas ba may egg na fàttaliku rek fu mu yëkkatee juróomi dërëm na Pape Sarr am barke yonent bi dama ne la man jël naa lépp teg ko ci suuf jéggal naa ko ci xol bu sedd guy jéggal naa ko jullit laa jéggal naa ko dootul déggati ma wax ko lu ñaaw dootul déggati ma wax ko dara yaa ngi may dégg sa lii wax ji mooy na ñëw uuf ay rakam ñun bi muy bi muy aye dañ koo gunge ba mu egg xaritoo sama yoon nekkul si ku mu xaritool am na ci plein droit du dëgg mais li ñu metti mooy tey dañ koo gunge ba mu egg fii ayam jeex war fa war a ñëw jàppale rakam yi ku mel ni Ama Balde tey dafa war a ñëw ngembu taxaw biir écurie Fallaye Balde ku ci am bés nga ñëw taxaw ko muy Pokola muy Ama muy boñaa muy Eumeu Sène ñoom man loolu laa xam billaahi wallaahi watalaay bu ko doon def tey Macky Sall bu doon ñëw fii sax balaa kenn di wax baabooy mooy wax baabooy mooy wax dañuy wax dëgg tey am na lu mu def fii Pikine ñu sonnal ko nag dégg nga sonnal ko dama koo bëgg ba nga xamante ne tey comprendre gis que suma waajur man dama doon fàq ndax baabooy parce que damaa xam ne su ma dugg see fii ci biir kër gi dama ne la suñu waajur bu ñu musaan a gis ñuy topp mbër su ñu ñëwee fii billaay wallaay tallaay paaka la ñuy tàngal paaka ba mu xonk ñu teg ko suñu loxo yi. moo tax ma ne la man kër mbër bu ma dugg dañ maa war a jàpp fukki loxo juróom parce que suñu waajur dañ fa doon dañ ñu doon tere ba ñu xamante ne mënulatuñ si ñun dara ñu bàyyi ñu. Mhm. ñu jeexale ko Pikine démb ak tay yu mel noonu jeexale ko ak Mohamed Ndao Tyson nu mu ñëwee ci làmb Pikine ak yu mel waaw Mohamed Ndao Mohamed Ndao Tyson ma koy nuyu bu baax a baax a baax di ko nuyu bu baax di wan ni jàmbaar la nit ku baax la dégg nga nit ku baax la jàmbaar la Mohamed ndaw Tyson man maa ngi ko doon gis seeraas boobu maa ngi seeraas di liggéey moom mu ngi seeraas saalu der <laughs> waxuma làmb de seeraas saalu der fi ñuy jaaye fi ñuy fi ñuy ñuy déposer der yi foofu la Mohamed Ndao Tyson mu njëkk ko gis mu yore benn burwetu der mu jóge foofu ma gis ko muy ànd ak ñoom fajaaw ñoom jamaal mu koy gis géej bi muy fëleeg sonné rek. ñii naan bas basketteur la ñii naan mbër la ñii naan kii basketteur la kii du mbër kii basketteur la day basket muy sélectionné ñun bu ñu ñëwee huit heures géej xam nga boobu dañ doon daw gaawantu ba dañ doon xëcc foofu ay mbaal ñu ñoom ëmmat seen booy gaa yëpp waa Pikine suba teel dañ doon dem géej bu ñu bàyyee jàng bu ñu ñëwee gis sa Mohamed Ndao Tyson bënn miir bi di sélectionné rek loolu rek mooy entraînement am sélectionné di sélectionné di sélectionné di sélectionné ba ba nu ñu ñibbee fa lañ koy bàyyi dégg nga ay ngoon bu ñu ñëwaatee boobu contact lañ doon seetaan ci Balla Gaye numéro un gis ko mu mu yoroon saak yooyu am ñoor ak trait militaire comprendre nga est que cuukal bi gudd <laughs> xam nga danaan balaak bi gudd boobu mu ngi gën a nekk booy boo bëreegul ak sax ak euh, Cheikh Mbaba bëreegul sax premier combat bëreegul arène rek tamit si lañ ñëwee ma ñun jékki-jékki rek nag Tyson dugg na ci làmb ji moom xam naa ni xaw ma lu ñu ko sotti waaye li mu am pikin néew na mbër am ko bayre boobu mu am pikin waaw waaw néew na mbër am ko parce que dafa bëree grand combat rek nit ñi commencé koo topp yaa ngi may dégg sax man ma commencé koo bàyyi xel xam nga di ko seetaan xam nga dem fële commencé di dem di yëg ci miir bi foofu mooy euh, cinéma awa boo continuer seen salle bi fu mu newoon ma commencé di ko fa seetaan di ko fa seetaan ba nu mu nekk ak seen Sène yenn saa ma dem euh, yoof fële Jili Mbay dem di di seeti foofu Eumeu seen di ko seetaale xam nga waaw muy nit ku baax daal mu def ay jaloore yu rëy fii biir pikin ndam ah. ah? mu ne indi nañu ko ndam indi fi roi des arènes moo ko fi njëkk a dugal waaw moo ko fi njëkk dugal wax dëgg yàlla mu déggal tamit ay magam yu fi nekk ak ay papam ku mel ni suñu ñoom papa Falaay xam nga xam nga ñoom Pape Diop mu déggal leen comprendre nga waaw ñoom laay gaynde puis daal ñoom njaga Tyson daal mention spéciale. donc